Babacar Diop, maire de la ville de Thiès, euh, président du parti euh, Force démocratique du Sénégal FDS Les Guelwaar. waaw gis nañ Sénégal jamono ji wax dëgg yëngu na euh, image bi intérieurement intérieur Sénégal extérieur bi tamit ñu bëri en tant qu'homme homme politique Sénégal wala maire de Thiès gis nañ souvent nag réaction patriotique patriotique dans le sens pas passif mais patriotique dans le sens républicain. Euh, lan nga gisee yow sa jàngat si fi ñu toll nii Sénégal si politique bi. waaw jàngat bi mooy euh, démocratie Sénégal sooxe na euh, rawatina ci bànqaas yu mel ni justice rawatina ci système démocratique bi aussi ni mu doxee mel ni troisième mandat nga xam ni ñëpp gis nañ jafe-jafe yi nga xam ni mën na ko indi Afrique indi na ko Sénégal sax 2011 2012 ñu si jàkk seen bakkan yëpp tey jii àdduna di doxaat ba troisième mandat ñëwaat. Eh, loolu lépp ñëpp gis ni mën na indi fitna indi indi ay jafe-jafe ay bakkan sax mën ci tuur yaakaar ni xëccoo politique jaru ko yaakaar ni troisième mandat jaru ko wala yàlla dimbalee ba nga am benn mandat am ñaar eh, war ngaa mën a fekkal vraiment nga gërëm askan bi nga xamante ni ñoo la benn mandat jox la ñaar ñu ko sa morom nga gërëm askan boobu vraiment dem ci jàmm morom ñu ñaan président Macky Sall vraiment mu delloo si xelam entourage aussi mu delloo ci seen xel xam ni ñaari mandat yi foofu lañ mën a yem. beneen bi mooy ni système judiciaire bi di doxee nga xamante ni jamono bu ne président Macky Sall day utiliser justice dal ci benn adversaire politique am def na ko ci Karim Wade def ko ci Khalifa Ababacar Sall aujourd'hui c'est le président Ousmane Sonko. loolu aussi ñu koy ŋàññi loolu du yoon du Macky sàll moom moo am dayo tànnal boppam ñi nekk candidat dafa war a bàyyi askanu Sénégal askanu Sénégal tànnal boppam ki nga xamante ni moom la bëgg tànn gis nañ ni aussi prisonnier politique yi bari nañ torop torop torop torop torop lu mat ay 400 prisonniers ñu ngi koy wax ñenn ñi di ay journalistes ñenn ñi wax seen xalaat rek Facebook ñu jël leen eh, dugal leen ci kaso bi ñooñu ñëpp ñu ngi ñaan ñu libéré leen euh, que ak dal gën a dellu ci biir réew. gis nañ président Macky Sall mom daf né récemment daf né Sénégal amul prisonnier politique lolu ñak informé wala wala mauvaise foi la wala yow noo koy jàng ah lolu position la mais moom xam naa prisonnier de politique mais na prisonnier d' opinion. Mhm. fa donc lolu communication la. mais je pense qu'aujourd'hui les li au Sénégal ñu ñu jàpp.